association bi nga xam ne moo ëmb yarkatu ginaar yi nekkee ci Touba di àddaat janoog taskatu xibaar yi di leexal mboolem jafe-jafe nga xam ne jamono bi ñu ngi koy jànkoonteel ci seen liggéey bi. bokk na ci wàllu euh, jaay mi nga xam ne moom la ñuy jaay euh, ginaar yi ak euh, lépp lu jëm ci wàllu liñ koy defee muy aliment bi nga xam ne moom la ñu yor yokkute bi ku ne xam ne ne métti na loo xam ne mi ngi doon jar daanaka ay 14000. tey mu dem ba ci ay vingt deux mille wala vingt cinq mille poussin yi nga xam ne ñu ngi ko doon jënd di ko jëndee euh, vingt cinq mille mu dem ba ci ay trent deux mille loolu ku ne xam na ni yokk boobu métti na mooy euh, li nga xam ne mooy yoonu ñaareel bi. beneen bi ci des mooy ku ne xam na ni euh, yar ni mu méttee ak ni nga xam ne noonu la defee ñoom it ñu wëlbatiku ñi ñu koy jox di wëlbatiku di yaraat bokk ak ñun filière bi nga xam ne ñooy wàccaat ci suuf di ko jaay. loolu it bokk na ci jafe-jafe bi nga xam ne moom la ñu gën a am ci jamono yi muy lu am solo loo xam ne parce que nit ki mënoo ko jox li nga ko jox baaxul yow nga récupérer li nga xam ne moo ci nekk yow di ko defal sa bopp di ci jaay lu baax li nga xam ne tànn nga ko mu doon lu bon nga yóbbu ko ci biti tasaare ko pour jox ko ñi nga xam ne ñooñu ngay liggéeyandool loolu itam euh, bokk na ci loo xam ne luy rey filière bi la. jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ñoom yarkatu ginaar yi nee ñu état bu Sénégal mën na ci dara waaye mu mel ni daf leen a bañ ñoom yarkatu ginaar yi nag nee ñu daañu banque seeni yoxo ba keroog état bi di wax ak ñoom ngir saafara jafe yi nga xam ne moom lañ nekkee. ñu ngi leen di ñaan daal état bi ñu wax ni danañ fas yéene ñii nga xam ne ñoom lañ ko jàkkaar lool dinañ boycotté lii ñu ñuy jox baaxul parce que munuñ cee liggéey di ci gis suñ bopp population bi munuñ ci am xëy loolu ñun danañ boy coté ba jëmmi jamono yi nga xam ne moom lañ ko moom la moom la ñu soxla li ñu soxla dañ ñuy wax nag état ko moom lañ ci yaakaar parce que ay doomu réewam la te ñoom la war a dimbali kon ñi ngi leen di xaar ci loolu. ñoom yarkatu ginaar yi nga xam ne ñoo nekkee ci Touba ak Mbacké di woo seen naataango yi nga xam ne ñoo nekkee ci yeneen région yi. ngir boole xeex bi mu doon benn. association des aviculteurs de Touba à date doon janoo ak taskatu xibaar yi doon leeral mboolem jafe-jafe yi nga xam ne moom lañuy ñuy jamono bi ci yarum ginaar gi. mu nekk loolu état bu Sénégal mën na ko saafara ndax secteuru yarum ginaar gi bokk na ci li nga xam ne day participer bu baax a baax ci koom-koomi réew mi. de demander à l'état d'assainir la filière pour sa survie. nous invitons tous les éleveurs de la région de Diourbel et Sénégal à se joindre à nous pour lutter ensemble afin de faire rayonner notre filière.